Ya malakul kunci fil abadi Arzil aziz mistawa min bulli Inni syaratu nakhalban rasyah mutawa Ya Allah ilman kisirun nafiyallah وصرف الأولياء وصرف الشعر وصرف الخلق الانتقاء معصوم وفواكس بي الله إني جعلتك في الدارين يا صفتي اسما عظيما فكن جاي الله فلا تكلني إلى نفسي فعلك كن مجيبني عصما أدعوك يا الله وجلساني لساني وقلبي شاكريك معا عند الممات مع الإيمان الله ثبت يقيني في قلبي بلا وجل حتى أحب لقاك خيلاه واجعل الموت راعة ومفرعة من كل شر وكرب داخلاه نسيمي عبيدي عينا عاد فنور جسمي فصرت وعيدا ثم يلام ذات ممنم في ما قد يروعني بل اكفيا كل ما أفضى يلاه ونجني وجميع المسلمين معا ونجي والدتي آمين يا الله اغفر لنا ولها وترنا ابنا والتبنا وبها فرعون الله أما تجاوز وإن نرى من فما لنا سواك وأنت البر يا الله في برزق ما قبلت الله وسرا ومن كروبنا وخوف الله لا تقتبلها بما ليست بقادرة ولا تخيب دافر فيك له واسقنا ما من لو كوثر من يقدرت من جميع خلق الله من كان يرسل داقين ويهلك ساق الدين وينصر من يرساك يا الله محمد المسك إلى خيار عائدنا لجنة الخلد يوم له Andi salib wa salim da iman abadan wa man kafaru yaumi dini lawan Alhamdulillah wa salam ala al-Nabi bihi ila nauda abada Alhamdulillah wa salam abada al-Nabi bihi ila nauda abada Sayyidina Muhammadin wal-Ali أنسى النبي من رواب المال هذا وإن اليوم زور توسل لقوا بأسماء ذوي تفضل فقلت يا قريب يا مجيب سجل الذي بي تجيب واقبل بي نظمي به يراج ما يرون رب بنوع وبإبراهيم يغفر ذنوبي وكشف الرجيم وكن بموسى وبجاي عيسى وأحيني دنيا وأخرى موسى وبمحمد رسول الله علي خير صلوات الله الإسلام والإحسان يرمى في الشقيق والفاروق بدنيا بالإخلاص والتوفيق باقي عثمان حق النورين علي الوالد سبتين أبني في دنيايا مغرايا النور والنور والمثايا بأرقط العتاب الشبيب وقشعة النجري بالليل وبشعيد وبعوف النجري من كل ما أخاف بالفتن وبأبي وبينة ما يفيد إلى شرابي واكفرني ما يبيد عبد الله نجرمي أي ولد العباس كسر الميم يا عبد الله أنت اليوم عندك في دربا ما يجهدنا وبامن مصاد وجار السلام عند البراء والدرعين وكلام يا ربنا بمظلمة العباس وأمسد منك كل باس بمظلمة العظم والعصير يبلي في الدارين بنورين بمظلمة القادم سمتا بسواقب يا معتمائل علمة الطيب إبراهيم أقم علي البشرى وتكريما بجاه فاطمة أبت نفسي أن كنت ما يجرني ياسي وبالرقية وزينب اكفري أترضى والإجابة كل زمن وأمني دنيا وأخرى بالكرم بأم كلثوم xam بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yéen mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ginnaaw bi ñu sante yàlla di sant Seexul Xadim ñoo ngi jéggalu bu baax a baax a baax kàddu yi ñuy yëkkati suñu kanami kilifa yi di ko tuubaat bu wér a wér a wér waaye di ko def rek ngir ndigal luñ ci am ginnaaw bi ñu ñaanalee xalifatul am Cheikh Mouhamadou Mountakha suñu borom yàggal ko fi lool te may ko wér ba li mu bëgg a liggéeyal maamam Cheikh Khadim yëpp mu def ko ni mu ko bëggee waaye noonu lay ñaan itam Serigne Sidi Mokhtar suñu borom yokki leeram te taaj ñu barkeem barke suñu Tuubaa waaye itam di siyaare bu baax a baax kilifa jotaay bi Serigne Khadim Mbacke mu Serigne Sidi Mokhtar. mu ñëwee fii ci teewaay yëpp xalifa sëriñ Sidi Moxtar waaye itam xalifa sëriñ Baara ak sëriñ Maam Baara Mbàkke xidmatul xadim waaye itam ci teewaayu sëriñ Ahmadou Mbàkke ibnu sëriñ Mouhamadou Moustapha Mbàkke daa tanzil ak sëriñ Karim Mbàkke moom sëriñ Xaadim Moodu Baara ak sëriñ Al Amin moom sëriñ moo du Baara ñëpp teew nañ fi ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaare bu baax a baax Eh, di santaat bu baax mbooleem eh, daayira yi fi teew yépp rawatina waa ahlu xasida yi ñoo doon taxawal lii ci ndigalul sëriñ bi ginnaaw biñ joxee sëriñ bi mbooleem lu jëm ci wàccaayu màggalu Mbàkke Kajoor gi ci alxuraan ji muy sàkku fii ba màggal gi lépp lu ñu durusati muy nga wéet ak jotaay boo mën a nekk rek sëriñ bi nee na mi ngi sàkku nga def ko ëddee Cheikh Mamadou Lamine Bara waaye itam itam te ñaanal ci mboolem njabootu Cheikh Mamadou Lamine Bara ñi xam si ñoo fi bàyyi ko ci at yi jiital ci sëriñ Modou Aïssa Mbacke ak sëriñ Basirou Mbacke mooy sëriñ Basirou Bara Mbacke ak sëriñ Sidi Mokhtar nee na sëriñ bi nee na fu nekk moo xam wet wala mu wet lépp lu mu durus ci xasida ak alxuraan. mi ngi sàkku ñu def ko addee si Mouhamadou Lamine te ñaanal ci njabootam yooyu fi bàyyi ko suñu borom yokk seen leer te tax ñu seen barki ginnaaw loolu itam ñi ngi sant bu baax mbooleem ñi fi teew ñëpp ci jëwriñ ñi sëriñ Abdou Lahad Fall mi nga xam si moo jiite ahlu xasida bi doon def durus bi ak mboolem daayira yi fi teew yëpp yëpp waa saadatu muridina saadatu tulaab sirul masoon miftaahul muna nooru daarini ak mbollem daayira yi xam ci si teew nañ fi yëpp sëriñ bi neena mi leen di sant bu baaxa baax te di leen gërëm te di leen ñaanal lépp luñ fi jàng ci alquran khashida ñu depo ci ngeerawal serigne bi mu melne ne jàngoon nañ fi alquran ñu do toll ci fukki kamil khashida yi itam moy bu naaf yax jàngoon nañ ci 72 wa kana xaar ñu jàng ci 197 jalibatul maraqib ñu jàng ci 29 Mafatihul Bichri ñu jàng ci sept yàllaahu bi masawa sindi di yàllaahu ñu jàng ci soixante huit Tuhfatul mutadarriin ñu jàng ci cinquante quatre jaawartullah ñu jàng ci cinquante huit yaa rahmaanu yaa rahimu di rabbi man yassarul ashana ñu jàng ci quatorze Matlabul Fawzayni ñu jàng ci trois jërëjëfe borom Touba ñu def ci ñeenti téeméer mooy quatre cent kon loolu mooy li nga jàngoon nañ ko jotaay bi waaye itam defe ko ne ko sëriñ bi santaane muy addee si Mamadou Lamine Bara rahmaan rahim def nañ ko ngir jëfe ndigal li nga xamantene bi joxe nañ ko ci magal gi nga xamne mom dañu wajal di magal bu mbacke ka jox ndax dañ tambalé waccay magal gi ba légui sa su nek war nañ di jang alquran ul karim ak di jang khassida di diko wajale bisub cheikh muhammadul amin bara mbacke bi kon yen ñi nga xamantene bi yen wa yen ay wa ahlu khassida bu daru tansil

doole ci ñun murit ci ñu liggéey sëriñ Tuubaa li ñuy jariñ lépp liggéey sëriñ Tuubaa la rawatina nag ci alxuraanul karim rawatina ci xasida yi nga xam ne sëriñ bi da ko bind di ci tàgg Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi wa bi nga xamante ne bi jàng na ko nag kon sëriñ bi ñu la koy gaaral sëriñ Xaadim Mbàkke yaag sa doom yi nga xamante ne bi yéen a ànd yéen a ngir teew ci jotaay bi teewa fi jëmmi Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbàkke muy Serigne Ahmadou Mbacke Serigne Abdou Karim Mbacke ak Serigne Lamine Mbacke ak kilifa yi nga xamante ni bi tamit fekkee nañu jotaay bi di Serigne Fallou Galas Sylla Serigne Cheikh Amar Serigne Fallou Ndiaye Serigne Abdoul Aziz Serigne Mbacke Dieng ñëw tamit tëjee ko ñu ngi sant bu baax tamit Serigne Jili Daraame mi nga xamante ni bi bi ñuy ñëw fekk nañ ko moom lañ fekk ci kàddu gi ci pasteefam ndax fan nga xam ne jóge na fa sore na lool ak daaru tanzil waaye bëgg lu baax ak pasteef moo tax bañ ko waxee guddi gi itam mu mu jàpp ko fas ko fas yéene ko te feeñal ci yéenam bu baax a baax kon nag sëriñ bi ñu ngi lay ñaanal nga ñaanal leen suñ borom defal leen faju fajuk aajo saxiran bu baatinan te ñii fi nekk nag ay ndaw lañ suñ borom def ci ñoom ak jub def ci ñoom ak taalibe def ci ñoom ndaw ñoo xam ne dañuy tegu ci yoonu siraatal mustaqim ubbi leen bursi bunti wërsëg bunti mbégte bunti xéewal ba lépp loo xamante ne bi sëriñ Touba Cheikh Ahmad Bamba namm na ko ci ab taalibeem suñ borom def ko ci ndaw ñi nga xam ne ñoo fi teew di di ci sant itam waa daara xidmatul xaddim te ki ko jiite ci liggéey bi nekk Serigne Duga Dieng ak Serigne Kodda Dieng ci taxawaay bu rafet bi nga xam ne yéen gan ñu fi ñëw yéen a leen di dalal teete leen ndax lii bi muy agsi fekk nañu ci liggéey bi te yàlla tamit moo ci def sutura ñu fekkee mu jëntal gi ndax am na foo xam ne bu ñu fa àggoon yaakaar naa bu ñuy ñëw danañ fekk liggéey bi àgg waaye nag dangeen ngeen ko def ngir jëmmi Cheikh Mouhamad Lamine baara Cheikh Mouhamad Lamine Bara yebal ak njabootam ñu ñëw ko fekkee ko tëj ko te ñaanal leen kon nag ki ko fi nekkal tey mooy Serigne Khadim Mbacke moom Serigne Sidil Mokhtar mi nga xamante ne bii xol yi du dañ ci moom xel yi du dañ ci moom ngir liggéey boo xamante ni bi liggéeyal na ko Cheikh Mouhamad Lamine Bara ba ñëpp teg ci seen bët ba mu ba mu dugg ci xol yi dugg ci xel yi defar jikko yi ci kër seex Cheikh Mouhamad Lamine Bara ba ñëpp xam kan mooy Cheikh Mouhamad Lamine Bara suñ borom nag indiwaat ko muy Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba Khadimul Rasoul bi mu fi nekkee nag ci diggante boobu di ci liggéeyal Serigne Touba mu yokk jumaa ji tabax jumaa ji nga xamante ni bi moo nekk ca Dakar ubbiwaat yoon yi boole leen boole tarixa yi. kooku mooy am seex seex Sidil Muxtaar Mbàkke ñun nag ñu amoon cër bu yaatu ci moom ndax cër bi nga xam ne jox nañu ko ci njàngum alxuraan ci Mbàkke Kajoor moom ci boppam moo ñu ko joxaloon boppam bi nga xamante ne bi jógee na fi nag Serigne Moustapha ne la la sama waajur defoon tamit feddaliwaat naa ko ci yow ñu ñaan Cheikh Sidal Muxtaar Mbacke suñ borom yokk ay leeram tataas ñu ci barkeem njaboot gi nga xamante ni bi bàyyi na suñ borom teg ci loxo ba yéene ji nga xam ne amoon na ko tamit suñ borom àggaleel ko yéene jooje te njaboot gi fi nekk nii yëpp ay taalibe ñu yaakaar Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba fas yéene sax ci ak taalibe dund ci ak taalibe faatu ci ak taalibe waaye nag doon taalibe yoo xam ne dañuy am njariñal adduna bi dañuy am njariñ ci yoonu Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba yow Serigne bi ñu ngi lay ñaanal nga ñaanal ko njaboot gi fi teew ñu am ay xéewal doon nit ñoo xamante ne nit ñuy jariñ lañ ndax nit wërtu dund rek jariñ ci moom kese nit koo xam ne day jariñ askan wi nga xam ne moom lañ bokk waaye doon ci ñi nga xam ne ñi sëriñ tubaa sàmm te ñu sëriñ tubaa bëggoon ay taalibe mel ni yàlla nañ ne ni ñii mel te it suma sama xol sedd na lool ci jëf ji ngeen def te rëy na ci ñun lool te màgg na lool kawe na lool ndax ñi fi nekk Serigne tubaab moo leen tànnal boppam Cheikh Mouhamadou Lamine Bara moo leen faggul boppam ba tax ngeen am jot gi ak yéene ji ak man ngee taxaw ba tax ngeen taxawoo ko nii waaye doonu bëgg ko tax koo mën a def ñàkk koo bëggee tax koo bañ a def ku fi nekk rek Cheikh Mouhamadou Lamine Bara moo la tànn ba tax nga mën fay ñëwal boppam Serigne Mouhamadou Lamine Bara nag am nag fay te dana fay ku ko jëfal mu fay la ci àdduna te dana la fay ci àllaaxira ndax Sëriñ Tuubaa moo ne su yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam moo ko bind leetar boobu te texeel na képp koo xamante ni bi aju na ci moom kon sëriñ bi guddi na nga àggale kàddu yi ndax yaa fi jëmmi Cheikh Mouhamad Lamine Baara nga ñaanal mbooloo mi fi nekk te it soññu ñu dollu ñu ñu ngi jéggulu bu baax a baax a baax suñu xol moo sedd ci niñ fekkee ak niñ leen bettee waaye jëf lu baax rek am solo bismillah benn doomu aadama rek boo mokkalu alxuraan yiw wu ci am kenn xam nañ toll ci àddina nga def ko ak lim bu bari kon loolu moom dañuy taasu ci li xam ni mooy barkeb alxuraan te moom mu koy dundal ba àddina sépp xam ko te dundal nga koy dundal boppam taxut dimbali aadama yi ak bàyyi ak maam ju baax ju bàyyi mu si amul bamba te loolu rek nga ko mën a defal mu nekk lu sedd xolam mu Sëriñ Tuubaa ni ko Quraan bi ak xasida yi xam ni moom moo ko bind moom Xaadim Rasuul ak téere xam-xam yi nga xamante ni moom moo nekk suñu diggante ak suñu boroom ak Serigne Touba ci aw lay nga xam ne lay amatut ndax bind na bàyyi fii fi wax nañu dégg ci ñu ko fekke kon loolu bu amee rek lii des ci ñun des ñu gën a góorgóorlu bu baax a baax te xam ni adduna moom li fi am solo mooy jub jub li ko jiit mooy nga fas yéene jaamu yàlla fas yéene dëggal li nga xam ni moo nekk seen diggante sa boroom ndax sëriñ bi loolu la fi bàyyee loolu teyit moom la ñu xool ci ñun loolee nag mu nekk ci jëmm ji ñu di ko rotal ci ay dënni doomu aadama ci dënni xale yoo xam ni ah ñu suñu borom ne la jàppale la ñu suñu borom ne la dimbali la muy fii muy fu mën di doon ci àddina si yëpp fenn fu nekk taxawal na fa lu mel ni kon dañ koy ñaanal moom suñu borom guddal aw fanam ndax bu mu woowee ci lu mel nii dañ ci sawar lool sawar gi nag ci moom mii la ndax dafa nekk ci yoon la yoon la ku fa nekk faaw nga àgg ndax ki warul ni lu baax moom kenn du ko amati ña ko amoon am nañ ko du kenn mënatu ko am déedéet baykat ba dañuy laa tax par sax laa dugg lu saara xalaat darbi wasal bu ñu gaayee amul lu baax dem nañ kenn dootu ko amati boo jaaree fañ jaar da nga àgg fañ àgg wala nga romb leen tey yéen ñi nga xam ne yéen fi sàkku xam-xam bu leen tayal ñu ko ci xam-xam ndax waykat ba dañu fi siyaadil ilmi irxaamul xida wa jamaalal ilmi islaahul boo dolli xam-xam dangay toroxal say noonu toroxal gi nag mooy li nga jàng nga jëfe ko li fekk noonu rek dolli ko xam-xam ni du la jëriñ dara faw da nga koy jëfe boo ko jëfee rek da nga toroxal say noonu kon loolu ñu koy digal képp koo xam ne yaa ngi ci daara ji képp koo xam ne yaa ngi sakku xam-xam fa ngay dolli koo xam-xam sa mbirum àdduna wala sa mbirum sa diggante sa borom la nga cay jëf na nekk jëf ju baax joo xam ne day dellu suñu borom loolu boo ko defee rek ci ngay toroxal say noonu guddi gi nag di wàccaayi màggalu Mbàkke Kajoor te kenn ku nekk xam ne Mbàkke Kajoor lépp sotti ko kon bu ñu koy waajal ngeen bàyyi seen itte bàyyi seen i nelaw bàyyi seen lépp te tey rek jiitu ci ngeen xam ne ah lu baax rek moo am solo ndax nit bu nekkee ci lu baax la ko cay fekk maanaam du ko xam ku yëg waaye nag bu ñëwee rek dana xam ni. lam doon def maanaam bu ko mënoon a yokk dina ko yokk muy suñu jotaay bi tey jii kon ñu leen ñaanal suñu borom guddal seen i fan yokk seen i wërsëg ba ñu mën liggéey seen tubaab te it leen ci saytaane am dëkk waaye nag bu ngeen saxee ci alxuraan ji ak xasida yi te bañ koo booleeg leneen loo xamante ni luy demee ni sobe wala luy deme ni leneen loo xam ne seytaane da ciy am aw yoon. loola ku ko boolewut ak alxuraan boole ko xasida jàmm rek am